xalifa nag yàgg na ma wax wóllëre gi ngeen am bi mu fi mujjee nee na ma li nga rate tey tey rek nga dee man ko déer waaye xalifa mu na sëñ bi laa demoon ni ma laajte na la waroon ngaa ñëw ma ne ko baax na dinaa fa dem ndek ci tey la ko yàlla dugal dogal ay Aïssatou Fall euh, moo féetewoo nag euh, ñoom Abdou Khare ñi nekk ci mbàkk yu fay mu nekk adjoint au maire Grand Dakar waaye di haut conseil de la République jiite jigéen ñi xalifa yilif ñëpp nag ànd na tamit ak adjoint au maire euh, bu Padoua Astou Sylla di suñu jigéen di jigéenu xalifa tamit ànd ak Aïda Touré di sama adjointe au maire ci Médina waaw ànd na tamit ak faatu Gueye di taalibe gu wér ndëpp moom ci kër gi la bokk kenn du ko présenté sama soxna tamit ànd na ci jigéen ñi ñëwaale Awa Diallo euh, xale yi tamit parce que bu ñu naan diw am na doole man la ñuy gis waaye ñi ma nekkal ci suuf ñoom yàlla dañoo dogal ñu soppal la seen bopp tey liggéey bi ñu war a def Ndakaar ak coow lu metti lañ fa bàyyi yëpp dañu ne yoon bi ñu ko dàqal kon ci ñooñu tey jii boo nee Malick Samba moo jiite xale yi moom ak Pape Sy ak Maguette Ba mi ak Pape Diagne ak Dout Fall Male ak sama rak El Hadj Dout Fall Nefi xale yi nga xam ne nag ñoom ñoo jiite mbirum xalifa Sall ci Ndakaaru Bas mii moo leen jiitu moom di taalibe sëñ Fallu kon Basirou sàmba ngi nii Léopold mi Mamadou Léopold mbay di doomu Pape Babacar mbay mi nekkoon ak xalifa député sëñ bi ñu ànd ak Babacar Diop mi di conseil municipal à la ville di premier adjoint au maire Fass Colobane Gueule Tapée Pape Diop mii nag moo sama loxo ndeyjoor la moom taalibe Serigne Fallou piir la gis naa ko mu gàddu butéelam nag nee naa ko say soxla su ma la toppee audience day jeex ndax da ngaa bëri problème da ngay bàyyi ba ñu pare rek. alaaji bëyee nag moom ab sëñ Fallou rek laa mu nga ñoom nee na ab sëñ Fallou rek la bëgg soxna si dafa amagul doom mu bëgg ab sëñ Fallou. waaw yàlla mën na ko def léegi alaaji bëyee ak Galas. ak Babacar ñoom samay rakk lañu tuubaa gii lañu nekk yaakaar naa tudd naa délégation bi yëpp li nga xam ni laay fësal nag mooy man sama waxu démb mooy sama waxu tey man ci Touba gii lañ ma tuddee Cheikh Ahmadou Bamba ci Touba gii lañ ma tuddee Cheikh Ahmadou Bamba sama wayjur bu góor sax Tidiane la wante li mu sentir moo tax mu ñëw ba fii tuddee ma Cheikh Ahmadou Bamba ngeen téye ma fii kooku ndam laa ko def Racine yow laa tudd woon kooku ndam laa ko def ndaxte ay ngëneel kese laa ci gis ay ngëneel ak doole rek parce que yaakaar naa ni kuy wut lenn boo kuy yàq boo jubee ci tudd Cheikh Ahmadou Bamba di nga dellu kuy yàq ni tamit ci sëriñ sëriñ bi bu ragalee yàlla boo ko tuddee sëriñ bu mag bi turam dina dellu moo tax tur woowu sa doom nga tuddee ko tur bu baax baax na ndax xam naa turu Cheikh Ahmadou Bamba lim ma jural sëñ Fallou ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm ñi ñu dalal ñëpp di wax tamit ni maam Ousmane tamit taxawaayam rafet na parce que boobu ba léegi mu ngi ci ànd sonn ci loolu pour ñu gis sëñ bi ci anam yi mu gën a yaatal jërëjëf maam Ousmane man nag jàppaleen ci yéen laa bokk maire laa ca Médina maay premier adjoint maire dakaar wante fii laa gën a yëg ci sama bopp fii ci Touba ndax tey su wàccoon liggéey balaa guddi fi lañ may denc moo tax fii laa gën a gis ndaxte àdduna jeex na bi noppi ci la fi des ci fii laa yaakaar may fësal sëñ bi rek nii Médina bi ma jiite de mooy dëkk bu ñu la bëggee lool dëkk bu la soppee lool dëkk boo bëri taalibe dëkk la boo xam ne xam naa ne bis boo leen doon gane si kenn du fa xaj may indi kàddu Médina yëpp nga ñaanal réew mi jàmm nga ñaanal taalibe yi jàmm nga ñaanal Médina ñun ñu am jàmm di la wax tamit nii kër sëriñ Touba googu ñu fàggu ba yàlla dimbaluñ ci nga ñaanal ñu ci ndax gàllankoor yi ko bugg ñi ko buggul lu ne ñu ngi koy jéem ngir gàllankoor ko mu bañ a am ñun ñi ko bëgg nag xar nañ ci suñu tànk Touba yi ngir mu am ndaxte damaa resevoir Xaadim Sàmb mu ni ma gis na la sax bu yàggul mu daal ñëw sama biir a jooy fa jooy yu metti ba jooyloo ñun ñu fa toog mu ni ma xëy na danga di xale wante santal yàlla ndax lii mébét la bu mag ñi amoon te amuñu ko bu sottee say loxo sant ci yàlla ma ne ko xaadim man xaw ma li ngay wax de mu commencé jooy tëwal noppi bi mu dalee ma ne ko xaadim explique ma man comprendre ma li ngay wax mu ni ma sëriñ Touba ci boppam ay doomam ak sëtam yàlla may na leen teraanga fu ne mën nañ ko am kër ba ci àdduna fu ne ci àdduna mais fii nga ko wutalee kër fii la neexee ma ne lu tax mu ni ma dafa am ñetti fan yu métti yu mu fi jaar ni ma ñetti fan yu métti yu Serigne Touba jaar fii ci Medina war a dem ci géej gi ni ma bis boobu miinul waa Ndakaaru ñu ngi ko mujj indi njaañeen ci rue 19 mu ni am na xas xasida bu ma wax sax ni mu ngi ciy gërëm njaañeen yi bay gërëm soxna Aana Fay mi ko toggal laax ci guddi kooku ci Medina waaw ci rue 19 mu ne ma kon tey foofu mu amoon xat-xat yi ba njaañeen di ko daloo tey foofu la ko yàlla may kër santal yàlla bi mu jaaree say loxo kon sëriñ bi man loolu kese laay sante yàlla di la ñaanal yàlla nag yàlla bàyyi la fi sëñ bi sa dund am na njëriñ de sëñ bi yow la ñuy xoolee sëriñ fàllu de tey yaakaar naa ne ñaanu sëriñ fàllu yooyu rek la ñu séntuwaat ci yow te di ñaan leen rek nag soxlawuñu lu bari sëñ bi nañ fi am yoon woo xam ne saa yu ñu la bëggee gis rek wala saa yu jaaxle rek ñun bu ñu la séeni rek suñu xol day sedd yàlla na la fi yàlla bàyyi yàlla may la wér ñu lay dénk suñu bopp di la jox suñu njébbal di la jox njébbalu Médina yëpp wasalaam kii sëriñ baa ngi leen di xamal ni maire bi sëriñ Bamba Fall bi mu accee ci salle bi sëriñ bi ci kaw loo ko doon tawloo waaye moom moo ne ko ci suuf laay ko sax la wax dana ko loolu ñemewuma ko sëñ bi nag bëgg ngeen xam loolu sëriñ bi soññ ko ci wax wax mu gànt rek na ko suuf laay toog te mu ngi nii toog suuf sëriñ bi nee ni ma ko waxee rek noonu la ñëw gi bëgg na ci lool bëgg na ci bu baax nee na koo xam ne bu la waxutoon ne maa ngi ñëw yow nga bëgg a yónnee ne ko na na ñëw. nee na kooku kii bu ne lay maa ngi ñëw nag man danga nga ciy sawar ci ñëwam lool. sëriñ bi nee na sawar gi itam. li nga wax rek melo melo sawar gi itam nee na li ma wax rek mooy melokaanam rek a tax. ndax sëriñ bi nee na moom kat ci réew mi la dëkk. li ma am lépp nee na lim am lépp ci dëkk bi la ne. samay xarit. samay mbokk samay sëriñ. sama lépp sama lépp rek. kon lu réew mi gën a baax rek. gënal ma. te dégg naa. ni ngay waxe ak ni ngay doxe dara nekku ci lu yàq lépp luy defar rek la kon nag sama giseek yow nee na sëriñ bi neen lu bëgg la moo tax bi ñu waxee ne moo tax bi ñu ma waxee ne ma bàmb Fall day ñëw seetsi la tuutiwul ci man. sëriñ bi nee na loolu tuutiwul ci man de. nee na lu rëy ci moom la. nee na lu neex la ci moom it nag. sëriñ bi nee na la mu ko yëgee. nee na du doon lu mën a li sax ndax ni mu ko yëgee daal doy na war. nee na da ciy jël ay kàddu sànni ko ci rek. nee na wax naa ci sama biir wax la léegi sa diggante ak xalifa ngoor gi ngor gi nga xam ne moom nga ci doxal. ak mat gi ak mat gi. loolu. loolu. mooy yokk. nee loolu mooy yokk. kóoluteef ci suñ seen diggante yéen ñaar. ndax nit bu fekkente ne. nii lay nii lay jàppe xaritam. nii lay jàppee waayam kooku yi ku mat a jàpp la ndax da ngay xam ne bu la jàppee ndax da xam ne bu la jàppee lam def fee rek noonu nam def fee rek noonu lay def ci yow xalifa sëriñ bi neena ñëw na fi nee na bi mu ñëwee fii la toogoon keroog wax fa wax ju mel ni jii nga wax rek wax ju baax te rafet te dëggu boole ci ba tey li nga wax nee na loolu lu am la li ngeen bëgg sëriñ bi nee na dafa tuutiwul nee na ku bëggulu tuutiwul nag faw nga daj lu diis loolu moo mas di am ba àdduna sasoo ba léegi sëriñ bi nee na noon yi la àddunay doxee waaye yow de sëñ bàmb sëñ bi nee nga xam ne sa gi daal dana jur lu bare bare jur lu bare bare bare ndax fii ñu nekk mooy Ndindi sëriñ Fallu Mbàkke moo ko sanc sëriñ Fallu nag yàlla def ci moom loo xam ni jaarale ko ci sëriñ Tubaa loolee yàlla def ci moom jaaree ko si doo rëy na lool ndax baatum na am mu am du am du am ñu bari dégg nañ ko Sëriñ Fallu te loolu yi nit ñi jékki jékki rek may ko ko de Sëriñ Fallu da ko liggéey wane ko bañ tudde ko ko kon nag boo ñëwee fii ci melow wii moo tax ma ne ñëw gii dana jur lu rëy sëñ fa ndax sëñ Fallu mi ko sanc dana ko yëg sa ñëw gi ni ko sëñ Fallu yëge mooy xam ni jàpp ko moo tax nga def lii sëriñ Fallu nag ku ko jàpp moom mu jàpp la sëriñ bi nee na jàppin nag jàppin dafa bari te bokkul waaye sa jàppin wii waaye yow de Bamba Fall sa jàppin wii ah, sëñ Fallou Mbàkke dana ko yëg ndax ñun ñi nga xam ne sëñ sëriñ bi moo nu fi bàyyi ci toolam bi ñu di ko liggéeyal sunug jàpp mooy xamal ñi nu fi bàyyi foo leen teg nun wax naa le na dañ laa jàpp lu jiitu bisub tey bii ndax saw melo loolu moo waral bi nga nee dangay ñëw fii nu bég ci ñëw gi loolu nag ginnaaw nun la fi sëriñ bi bàyyi ñu nekkal ko fi di ko won li nu yëg li nuy yëg ni di ko ko won li nuy gis ni di ko ko won loolu kon danañ ko wax danañ ko won ni nga deme te bu boobaa mu defal la moom suñ fal lim la war a defal ndax njaay moo gis kat dafa am prix dafa am njëg yo ndax yow mii sam njaay njëg gi mooy boo ñëwee fii sëñ Fallou li yor te di ci dimbali ku ko soob mu mu dimbali la ci nee na loolu mooy njëgug li ñuy jaay na nga xam ne daal fii sa kër la. fuñ la fonke la. fuñ la fonke la. ndax sa jikko. ndax jikko kat. dafa am solo. ndax ñii nga xam ne ñoom nga àndal. ñoom wax nañ. kenn ku ci nekk. boo ko xoolee. rek xam ni. ni mu àndee ak yow. daf koo neex. te la tax mu neex ko ci yow mii la ko gisee kon dal sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal foo bëgg a yegg nga yegg fa xalifa it ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk nekk njiglaay ci moom ndax léeg-léeg loolu day am ndax nit léeg-léeg mu jaar foo xam ni day diis fekk loole njiglaayam la ndax lay toon ndax lay tax mu doon njiglaayam diis ga day am ñu ko yëg ñoo xam ne ca lañ koy soppe ca lañ koy ñaanale ca la seen xol di jëme bu baax ci moom na ne loolu yi day am nga xam ne bu diis diis ba amutoon noonu ñu ko gisee ak noonu ñu ko jàppee na ne kon bu boobaa duñ ko def ndax bari na ñu dégg xalifa ñoo xam ni bi xalifa amagul tolof tolof bi bi xalifa amagul tolof tolof bii daaw ñu dégg turam xamuñu ko nit boole ci waaye bi tolof tolof bi ñëwee ci lañu xam xalifa sàll ci la seen xol jëme ci moom ci lañ nakkee di ko ñaanal yërmaande ji jëm ci moom nee na yooyu yëpp ci diis diis bi rek la ñëwee moo tax yu mel nii daanaka boo xamee àdduna boo xamee àdduna du la yóbbu fenn fii sëriñ bi nee kon xalifa sëriñ bi nee mi ngi koy ñaanal mu génn ci tolof tolof yii ba ba fu mu bëgg a dem rek mu dem fa te ànd koog yéen ñii mu ko àndaloon ndax yéen a ko jàppe nii jërë ngeen jëf